Monsieur le ministre des, Finances et du Budget, Monsieur le ministre du, Travail et des Institutions. Monsieur le ministre, je vais commencer par féliciter les liens ministres parce que vraiment exemple courtoisie si vous di avant plénière en commission vous étiez là constant talk, calme distingué xam ñun yi nous sommes très agités parfois mais il y a na leen ngeen toog gérer loolu yàlla na yàlla fay leen monsieur le ministre moi je je vous félicite je vous félicite parce que le budget je l'ai parcouru monsieur le ministre moi j'ai fait 20 ans dans l'administration maa ngi maa ngi directeur général Bassirou Samanias. j'ai fait 20 ans j'étais acteur du budget de l'État du Sénégal et j'ai considéré avec responsabilité que deux filles dem nek fait lu ma voté contre budget ça c'est une ça c'est une responsabilité personnelle pour xamni man mako je sam ça n'a rien parce que je considère que le politique euh, euh, le budget n'a rien de politique su politique budget n'a rien ku politique. monsieur le ministre je ngi féliciter régie financière yi muy impôt muy douane maa leen di féliciter bu baax parce que nak luñ mënti les finances publiques du Sénégal sont bien tenues Et lolu aux fonctionnaires yi ci ak agents de l'État yi nga xamni ñoo ministère des finances nous ñu leen bu baax monsieur le ministre je ngi lay encore une fois ñu bàyyi xel ci direction générale des impôts et domaines ndax dafa am ñaari plan plan yaatal ak plan sama këyitu kër plan yaatal c'est pour renforcer les recettes parce que wax naa ne bu fekkee Sénégal dix personne nañ fi mu toll nii dañuy jàpp ne ñett yi ñoom ñooy fay impôt ma jàpp ni loolu jaaduwul parce que sénégalais yëpp war a fay impôt loolu nag la directeur général des impôts gis ba indi plan bu tudd plan yaatal monsieur le ministre loolu maa ngi demandé à que ñu ñu yaatal ko ñu yokk leen ci ay moyens naka noonu mu def plan bu ñuy tuddee sama këyitu kër loolu day permettre sénégalais yi ñu accéder ci seen i propriété mais aussi da leen di permettre ñu am garantie pour suñu bëggee dem ci banque yi lépp ñu am lu ñu garantie monsieur le ministre loolu daal maa ngi la siy bàyyiloo xel monsieur le ministre maa ngi lay bàyyiloo xel aussi si Kébémer ndax nag Kébémer 12 ans 12 ans wala 10 ans yi président Macky Sall def si nguur gi yëpp wax dëgg fa yàlla Kébémer gisuñu si seen bopp et je considère que Kébémer ay contribuables sénégalais ñoo fa nekk je considère que budget yi président Macky Sall doxalé ba fi mu toll ay doomu Kébémer contribuer nañ ci Kébémer nous sommes dix-neuf communes té communes yëpp dafa am ay problème communes yëpp am ay problème par exemple suñu jëlee Kébémer commune estatu estatu Kébémer dafa nek demande sociale bo xamné ñi ngi féliciter le maire le président du groupe parlementaire parce que mom def na fi ay avancées ba amna ay travaux yuñ yu fa entamé mais xamnañ ni maire yi mënu ko def kon monsieur le ministre ñi ngi ñaan stade Kébémer mu bokk ci dégg naa monsieur le ministre des sports di wax ne am na programme mais dama bëgg stade maire, ñu boole ko ci ci programme boobu naka noonu monsieur le ministre délocalisation commune yi nekk Kébémer Kabou gay Nandu Ceeb Bandeng medina Dakar euh, Sam Yabal foofu yëpp c'est enclavé pour nga dem fa bu dul nawet ba taw bi taw ba ba suuf si dale pour nga dem fa c'est c'est tout un problème monsieur le ministre dal lolou mo mo nekkoon yi nga xamni mo moo sama wax yu muju leneen li aussi maa ngi doon wax ne monsieur le ministre de l'intérieur bi mu fiy ñëw fekk ma fi mais maa ngi lay yóbbante si moom pour pour les hommes de tenue parce que man je suis un un fils de policier dama bëgg condition de travail policier yi vraiment ñu jàppale leen si ñu jàppale leen si et puis ñu ñu protéger leen parce que bu manifestation amee ñun doomu policier yi dañuy jaxle parce que suñu doom suñu papa yi suñu demee si terrain bi suñu gagné ben manifestant wala ñu ray ben manifestant ñëpp jóg way il faut ñu xol il faut ñu identifier té bu bu fekkee policier bi la loolu dal kenn du wax japp naa ne kon policier war nañu na protéger war nañu yàqu sen sen condition de travail asalaamaaleykum wa rahmatullah